sans limite TV votre site d'information mbokk yi asalaamaaleykum am nañu mbégte lool àndaat ak yéen waaye tey ci beneen facette ci beneen dimension la ñu daal di génn euh, indil leen li nga xam ne itam namoon ngeen ko Sénégal yi namm nañ ko jeeg ji namm nañ ko waaye itam ñi nga xam ne ay hommes mariés lañ galant euh, galant lool ce que je voulais dire leen ma ñoom itam namm nañ li nga xam ne euh, moom lañ leen di wan tey ñu seet si une grande diva ki nga xam ne dafa am jom lool nangoo liggéey di la diva Saliou ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziar amaan nañu mbégte lool àndaat ak yow. Albourakh euh, ñu ngi lay fay. namoon nañ la euh, maa leen raw. maa leen raw ba ci yow lool waa Dubaay ñu ngi fa. très bien nuyul. waaw euh, maa ngi nuyu ñëpp di leen nuyu comme ni ma leen daan nuyoo Diva Saliou taaliba Serigne Saliou borom ñaari Saliou yi maa ngi leen di bëggee yéen ñëpp di bëgg si yéen ah di bëgg si waa Sans Limite TV. d' accord jërëjëf euh, la diva alors tey nga ñëw génn foo xam ne nii Sénégal yi bëgg nañ ko. Mhm. ci ay facette ci ay yu xeet yu doy waar yoo xam ne mhm. nii waxuma la sax nga nga jëfandikoo ko waaye bu la mhm. xeeñee rek. moom da ngay tàq li ko sa sago. waa fu ñuy njëkk tàmbalee foo bëgg rek ñu ñu ñu tàmbale. waaw affaire yi moom dox dajale. te dox daje moom euh, lépp a ngi ci biir. Mhm. cuuraay a ngi fi. Mhm. Euh, pompe chambre mu ngi fi ay karité Dubaï yu meilleur mu ngi fi. Mhm. ah ay euh, coffret ànd yu meilleur mu ngi fi ay produits dentaires. ah produits dentaires yi. ñoo ngi nii lii moom maa ko fi am. d'accord produits dentaires yu meilleurs yi nga xam ne euh, day weexal sa bañ setal ko mhm. en même temps day génne mauvaise haleine mhm. te ku sañoon sa gémmiñ xeeñ neex nga jàkkaarloog nit ki mhm. di wax gémmiñ xeeñ neex loolu ñëpp ko bëgg ku ñu ñaan ñaanuñu maanaam ku ko yàlla jagleel mu dal la it euh, loolu du dara mais da ngay jënd ci produit yu baax yi mu faj la d'accord bii ban la moom waa bii nag moom nay ban la tudd nay ban nay bann waaw moom bu nag ban la boole hmm. bunnu ak bann la boole. bunn ak bann. waaw bunn ak bann ngi nii. d'accord venant de Dubaï <laughs> bii moom danga koy taal ah, waa koñ ba moom à chaque fois dañ lay fëgg si. Mhm. naan la li nga taal lan la. Mhm. Diva Saali wa ko am. d'accord taal bi Serigne Sall te prix bu yomb nag cherul. cherul ana ñi doon tabax. waaw leen tabax. waaw waaw. la Diva ah. jënd na soo ko si pépp lay tabax. <laughs> bii ban la moom. waaw bii mooy Miss Taxra madame Ndiaye mën nga enregistré sa téléphone. bii mooy Miss Taxra bi. Miss mhm. Taxra gam bi. Euh, dañ koy wax. Mhm. partout dans le monde ku ne naan ma diva. Miss mhm. Taxra laa bëgg Miss Taxra laa bëgg. Euh, euh, bii gam bi la. bii savon bi la bii crème bi. bi powda bi mooy poudre bi huile bi. mu ngi nii gam Miss Taxra yi am na douzaine am na demi douzaine parce que ñu bari dañ mën a diva. comme ni ngay jàppalee nit ñi. Mhm. Euh, douzaine rek jaay man leen non non benn sax dama koy jaay. d'accord parce que musku taxaraa bi. fii mhm. euh, moo nekk nii lii huilam la. huilam moo nekk nii. huile moo nekk ne d'accord musku taxaraa la mhm. lépp musku taxaraa la mais euh, ku bëgg douzaine dama lay jaay ku bëgg ñaari douzaine dama lay jaay ku dix douzaine ma jaay la mais ñi nga xam ne amuñu ñoom aussi wala ñu bëgg jaayuñu business ñu dañuy bëgg benn wala ñaar ah mhm. kay dama leen di jaay d'accord waa fii loo ñëw rek am na fi loo ñëw am na fi loo ñëw am na fekk prix boo indi ak njëg goo indi parce que doole yemoon d'accord waa yéen ñi doon neelaw yeewu leen boog la diva la ne dëkk bi eh, bi ban la. ma arrêté bi ban la waaw bii nag euh, vitamine C la ak crème de visage bu meilleur la. kenn mësul gis bii moom doon naa ci direct Dubaï. te li ci gën a neex mooy amul benn effet secondaire. amul effet secondaire xam nga des yi mu mu lakk sa kanam. wala defal la ay picc bii du ko hmm? def ba hmm? pare dafa dafa da gis nga moom ponkal la. Hmm? sewul de du taay fin de. jeeg la mu ngi nii. crème de visage bu baax la euh, vitamine C. xale yi day leen def seen kanam yi crème de visage. parce que booy def crème a màgg. gis nga ma man ni ma mel te am naa téeméeri at kay da ngeen say crème de visage yu baax bañ a agressé sa peau mhm. lait de corps kenn du ko diw ci kanam ku leen ko waxit day bëgg lu leen neex mais après boo jëmee mag ngay comprendre mhm. lait de corps pour yaram la parce que mhm. lait de corps lañ wax comme kanam dafa fragile da ngay genre crème de visage yu Dubaï yi indil ma yeneen crème de visage yi bi vitamine C la bi vitamine C la. bi vitamine moom dafa baax ba pare anti bëgg nañ ko xale yi bëgg nañ ko loo ci indi du taxaw bii la bii la bii bii xale yi di wër nag waaw melano bi moom la xale yi di wër adresse bi benn la de dafa nekk sax en rupture bi Joya la Joya ngi nii Joya bi ba ah. gis nga ko Joya moom dafa ànd ak sérum moom ci biir mhm. moom dafa complet moom dangay jël pot bi mhm. dajji sérum bi def 3 days lañ la wax mooy 3 mhm. jours 3 kon xam nga loolu meilleur la ah. sans effet secondaire 3 jours nga mel ñu la neex nga beel ah. noonu la neexee. noonu la neexee. waaw moom ganaa la dafa jongoma. njoolaale waaw parfum de chambre la bu meilleur gis nga ko ni mu mel. Mhm. da ngay teg sa kaw coiffeuse rek. Mhm. parfum de chambre bu meilleur. d'accord waaw venant de Dubaï dañ ciy jaay douzaine dañ ci jaay demi douzaine ku bëgg benn it ñu jaay la. Mm. waaw dañ koy jaay maa koy def. la ilaha cuuraay baa ngi noonu. cuuraay baa ngi nii bi nga yéeg bii laa taaloon. Mm. waaw bii nga doon jàmbat naan ma lii xeeñ ci kër gi lan la. ca mel ni ma la bañ tolloo si yàlla euh, roog mbalax waaw la ñu commencé xeeñ dëgg la nga naa ma Diva li nga taal lan la <laughs> boobu bii laa taal mhm. bii laa taal bii nag moom danga koy def sa ci sa doomu taal waxuma mhm. laa yow sa kër sa mhm. kër moom dañ koy jàllale mais koñ ba yëpp yëpp yëpp yëpp ngay xeeña laa leen xam nga ne loolu dafa neex dafay ubale ndax xet gu neex ci jaamu yàlla la bokk xetu àjjana ba sa imaginel sa jëkkër la sa sa borom kër liggéey ba wàcc bilaay nga taalal ko bii xetu cuuraay mu yegg ca mbedd ma rek xam ne jabaram def na loo ko sant mu def ko da koy def bi bana ba tey moom it cuuraay la sachet bi yéen sama gars yi moom xàmme ngeen bii mm. bii xaw ma lu mu fi desee ba léegi sax mais dafa jeexoon mm-hmm. gisuma ko mm-hmm. bii moom xetam moom xam nañ ko gars xam nañ ko parce que su ñëwee lii la ñuy commande tant que jeexul duñ jël beneen cuuraay bi moof bi la mu ngi nii la ilaha illallah lépp ci Diva Saliou taalibe Serigne Saliou ah. aa waaw arrêté leen tabax dëgg la la Diva lakk na dëkk bi li lan la. voilà ànd baa ngi noonu ànd électrique la waaw damay bëgg kër yi bu ñu xeeñee neex ba pare. Mhm. oto yi damaa bëgg ñuy xeeñ neex. waaw waaw waaw ruq yeeg ruqaat yi damaa bëgg ñuy xeeñ neex te lii da koy def sa oto. Mhm. sa oto nga koy def. Mhm. branche le ko. jeex na. Mhm. di ci teg say xeetu eh, cuuraay yu neex su la neexee nga sotti ci huile. Mhm. neexee nga sotti ah, euh, taal ko muy brûler. xam nga mhm. brûler léegi dafa xew ndax góor ñi bëgguñu saxaar bu bari. d'accord a xam ne ñuy taale cuuraay. déedéet déedéet. parfois da ngay gis benn dibaag boo xam ne dañuy ñëw rek xëpp ca xale. am na ñoo xam ne dañuy jël xal yu bari ñëw rek jël cuuraay def ko ca jëkkër jay saqat mu jëndee cuuraayam lu cher loolu lañ leen kii indil nañ leen ànd brûler yi ngeen di brûler huile yi def huile rek taal jox ma brûler bi nekk sama nekk xanaa pour ñaareeli la. waaw waaw xam nga dañ na aawa day sàcc ñaareel dawul tooñ. ñëwal am ñetteel nga mel ni dërëm fii la ko ko yóbbee. bay daa koy sëriñ Tuubaa sa jëkkër jëkkër du la yomb. <laughs> voilà nday asu jox ma bi nekk sama nekk kees baa ngi nii bii mu ngi nii ba tey dafa am kubéeram. Mhm. bii laa tuddee tig mu tàkk tak mu fay xale yi mhm. moom la ñuy bañ dégg nee nañ lii da leen di reeroo xoolal fii ngay bës xam ah, nga ba ñuy gone daan mu tàkk tak mu fay. <laughs> tak tak mu fay mu fay kaa du lenn lu dul bagage yu baax yu meilleur ba pare ay petit prix petit prix bi dafa am kubéeram da ngay teg nii mhm. teg sa cuuraay tëj ko mhm. branchele ko ah boo ko branchele euh, mu nekk teg mu tàkk tak mu fay waa brûlé bi moo nekk noonu da ngeen di xool benn ah, nañ nañ ci bii ba pare. xoolal xool leen ci benn huile bu ngeen ci sotti. Mhm. instant bi amul huile brûlé yi yii maa koy jaay. Hmm? da may ma may ma benn huile. waaw da ngay jël sa huile rek sotti ci. waxuma laa mais oh dafa may ba pare xet gi du deñ day jàpp ci rido yi gis mhm. ngeen day jàpp ci rido yi may ma may benn huile waa nga teg ko ci mu ngi nii teg ko nii rek nga ma benn huile lii jaratul boyal mhm. jaratul monsieur naan la lii xeeñ jaratul dara xaaral mhm. sama rakk ji daa ragal kii moom bëgg kër gi day neex waaw day neex kër gi day neex dëgg la avec Diva Sali tout est possible gis nga ñëpp ay bëgg xoolal lii jeex na huile bi doo nga ciy sotti bu brûlé brûlé brûlé ba xeeñ yaa docteur u ji maay docteur Dieg yaay docteur Dieg ji ñu ñëw ci ñu ñëw ci bii voilà lii ah. nag ay mini parfum la mini parfum ay mini parfum la euh, yu graaw yoo xam ne mhm. euh, moom moom da ngay def sa pochette maa nga def sa poche mhm. fu la neex nga koy def fu la neex venant de mhm. gis nga yii yëpp ay mini parfum la black up ah, Bachir Babacar waaw gis ah, nga ñu bëgg parfum yu baax yu marque ñoo ko ah. di waa si ñoo ko kii ay marque la Black Opium yaa ngi gis mhm. ay marque la lépp mhm. ci Diva Saliou yéen ñuy jaayaat dañ leen koy jaay prix bu yomb mhm. jaay am ci dara dëkk bi neexul du dëgg mhm. yéen ñi nga xam ne da ngeen di jënd pour use ko pour seen bopp yi da ngeen di ñëw petit prix la mhm. lépp ci Diva Salim li fi ne lépp kenn mënu koo wane bi man la waaw bii nag euh, parfum góor la moom parfum góor la waaw interment la mhm. interment la venant de Dubaï bii moom kooku demul Dubaï doo ko am te dem Dubaï sax taxul nga am ko ndax dafa am ruq yu am dafa am ruq ruqaat yoo xam ne tant que demoo ba biir Dubaï wala nga miin ko ca ruq ya doo ko am ca ruq dem Dubaï pour outil li nga xam ne moom la Sénégal yi bëgg. dëgg la ah yu ma fa Sénégal rek ngay jaay. wóoruma di monde entier bi ngay jaay déedéet dëgg yi la parfum yu meilleur ba pare lii da nga koy jënd ah hmm. gis nga ne xoola bi xoola xet bi lii jàmm la kenn xamul lu mu doon bismillahi rahmaani xamul lu mu doon mu ngi noonu ah! lépp ci divan saaliw lay xewee indil ma coffre yi léegi ñu jóg dem ci robb yi comme li fi problème tey déedéet doo am problème soo demee rek nekk ci divan saaliw laa jógee dina ko xam dégg naa da ngay def social affaire boobu noonu demee man gis naa nga tiim xaalis. waaw euh, ñu naan da ngay def di maye xaalis du expliquer ñu comprendre dëgg la voilà euh, wàllu social bi. Mhm. c'est vrai que ni euh, damay jàppale ay nit ñuy liggéey. Mhm. mais jàppale bi may jàppale euh, vidéo boobu. Mhm. benn bi am na un million de vues. ñu ci bari dañ ma woo ne ma diva supprimer vidéo bi. parce que le lendemain bi ma xëyee maa ngi ko publier le 26. le 26 le 27 bi ma xëyee koñ bi yëpp nit ñi ñëw nee naa man ñi ma dëkkal. sonal naa leen. parce que dañu dama jël xaalis bi di teggil ay nit. nattu 2 million la mu doon jeex ci vingt cinq bi. Mhm. ñu publier ko nit ñi gis ko yaakaar ne edd la. tout loolu nag moo waral coow li. Mhm. dugg naa sax def euh, video mais ba tey taxul nit ñi bàyyi. Mhm. Euh, loolu nattu jàmbur la. nattu jàmbur la bu mu doon teggi. d'accord natt la. buñ doon teggi. Euh, ma koy jox seen borom publicité ko ne leen nag edd bi may def. ba tey maa ngi koy def mais man edd bi may def joxuma kenn xaalis. joxuma kenn xaalis mais nee naa ku am sa cinquante mille. bëgg ne naa ko téye mu mat 100000 wala 200000 wala naa ko téye ba mat 300000 soxla da ko fay fekk. Mhm, tout à fait te Sénégal lañ nekk. Mhm. kenn mënta denc xaalis. lépp loo téye rek. day am lu ko fa fekk. Mhm. nga ne ah ma ne bëggoon naa commerce daaw mais li taxoon ma ne leen ko am 50000 ñëwal jox ma ko. soo ma ko joxee ci saa si ma jox la bagage valeur 75000. 25000 yi ci des duma jël sa carte d'identité du ma jël sa dara. soo amee ngor gi ma am bale ba la nga am ngor fay ma mhm. baax na mhm. boo ma faytit duma la topp mais duma la joxati bagage c'est soo indee cent mille mhm. ma jox la baleeru cent cinquante mille boo ma fayee cinquante mille yi baax na sa wërsëg day gën a yokk ci man ma lay gën di jox boo ma fayutit duma la topp. Mhm. du ma la sonal laajuma pièce d'identité laajuma dara xam nga ñan laa woo. Mm. ñi bëgg liggéey ñi gëm seen bopp étudiante yi commerçante yi nga xam ne ñu ngi débuté bëgg commerce seen xol. xam nga mm. commerce looy bëgg la looy yëg la. ñu koy yëg seen xol amuñu mm-hmm. yenn fonds yi. Mm-hmm. ñooñu laa woo pour jàppale leen ne la boo indee cinquante mille ñu jox la valeur soixante quinze mille nga indi cent mille ñu jox la valeur cent cinquante mille ba tey ñiy def boutique. Mm-hmm. da ngay tëj sa boutique doo am bagage. nga tëj sa boutique mu yaraa xaale ndeysaan nga toog rek di sagu comme boutique ba ne suñu koñ waaw boutique ba ne seen koñ ay kees rek la ay kees dong la ma ne la mhm. ñëwal mhm. àdduna amul solo mhm. ñëwal soo amee sa cinq cent mille indil boo amee sa trois cent mille indil nga ñëw ma chargé la bagage ba mu fees chaque mois ngay dagg di ma fay ba mu jeex yaa ngi dégg kon maa ngi jàppale mënu ma nag jàppale ñëpp mais ni may def su ko sama fukki moroom defee réew mi dina avancer c'est l première fois nag euh, jigéen di def lii parce que bi ma ko jëkkee publicité maa ngi Turquie bi ma koy publicité ne dama bëgg jàppale sénégalais yi dama toog rek ba mu yàgg ma ne mais man su ma yoree xaalis war ko jëndee téléphone bu cher wala def ci lii wala def ci lee boobu maa ngi yor téléphone bu jar 60 mille mhm. ma ne xaaral ma essayé ci 3 millions. Mhm. ma ne xaaral ma jënd ay bagage daal jàppale ci samay ndaw réew. mais ma publier vidéo bi ñu bari ñu ngi commenté naan kii de dafa yàgg voyage dafa bëgg bagage boo xamante ne dafa bëgg billet. Mhm. mais da leen di turiande <laughs> mais dafa bëgg billet bu mu ñibbisee te boobu xamuñu ne Sénégal ba ma fi gëjee mhm. une semaine la parce que man fu ma voyagé cinq jours laay def su ma yàggee ba yàgg une semaine mhm. mais cinq jours laay def ci àll bi ndeysaan commentaire bari mais ñooñu doon commentaire dem nañ ba ñëw ba ci sama kër gi ne ma diva bi nga ko njëkkee dugal ay naxe la parce que Sénégal nag tàmmuñu yenn yu yomb ko gisee dañ naan naxe la mais man li may def du naxe mhm. man damay woote ay nit te bu doon ku fi ñëw ma filmer la wala ma dugal ko ci TikTok bi di ngeen gis ku ne mais nag booy jàppale nit ñi day ànd leen wax ne affaire yi du naxe ku ñëw dañ lay jox bagage nga mhm. dem liggéey sonaluñ kenn laajuñu pièce laajuñu dara mhm. ku am ngor fay mhm. ñu continuer di liggéey parce ba ci ba maa ngi yóbbu xale yi Dubaay te dañuy liggéey man rek dem ba ma xam ne mënuñu daggal seen bopp billet te gis naan ay liggéeykat leen ma daggal leen billet ñu dem xam nga li ma yor maa ko moom parce que robe yi le 10 janvier sama jour anniversaire ma ko doon féetee Dubaay mhm. dama taxaw ci boutique naar ba may jaay robe yi dal di dama leen koy jox cadeau mhm. bien vrai que yéena ma war a jox cadeau mais damay jënd robe yi li muy jar Dubaay mhm. muy 7500 ma may leen poids bi sama poids ma may leen ko jaay leen ko coow robe yi ñëw 7500 ba dem naa ci sax yoon Dubaay parce que euh, dama demaat di jëndi robb yi borom mm. boutique ba téye ma daal di woo yoon mm. ba wooyee yoon xam nga Dubaay nag loo def dañuy ah, woo yoon ne ma lan moo tax ngay jaayee robb yi price bi mm-hmm. ma ne ko am naa droit jënde junni jaayee téeméer robb yi 12000 la jaay Sénégal ma leen am naa droit jënde junni jaayee téeméer ki ma boole woon sama mbokk sénégalaise la mu ngi dëkk fii ñoo dëkk ñoo bokk sama mbokk la ba ñu joom doj ma te indil tuuti problème mais mm-hmm. naar bi bi mu waxee def police daf ne ko am na droit sax maye ko mm-hmm. ndax xaalisam la moo ko jënd mm-hmm. li ma créé mooy boutique bi ma dugal ci saasi ma euh, supprimer boutique bi loolu moo tax ma incité di jaay robe mais jaay robe bu nekkutoon sama liggéey. Mhm. bi ma commencé robe bu léegi matu sax 3 semaines. te macha allah chaque jour 10 23 <laughs> laay dajji. Mhm. muy 5000 pièces. Mhm. chaque jour 5000 pièces su ma ko dajjee. te lii may dajji tey bu subaa bu ngeen fi ñëwee ko fekk barke Serigne Sall. ñu dem def voilà nañ leen dem xool robe eh. yi. waaw mu ngi noonu nañ ko tas ci suuf wane ne ñun jënduñu benn douzaine. Eh, yëkkatil ma couleur yi waneel ma sama waa direct bi ñu xoolaale waa gis ngeen. robe yaa ngi nii de. 8500. 8500 lay jar. barkent bi 12000 lay jar Sénégal. waaw maa ko saña a jaayee loolu. di jaayee douzaine 100000 francs. Ah, chaque jour xoolal li ñu teg yëpp. ay robe la tey dañuy jal kër gi robe ba duñ am fu ñu lekkee ma mbaxalu eh, Saliou. moo ngi nii. di waa Saliou. yii xeetu robe. waa yu meilleur. maa koy jaay xoolal bleu blanc bi. venant de Dubaï. waaw ak vert bu tendance bi samay couleur xam naa la. da nga jënd xale bu xam couleur. xam lu baax. moo ngi noonu. léegi nag lépp la ñuy daal. dañ ko xoolal lii dañ ko ñëw mu am col. ah tout moment mën naa cee sol benn won leen su ma paree. Eh, xool leen lii. ay waay xool leen lii. maam Maodo xeesal dëgg la. voilà kenn mësu koo gis original coton. maa koy jaay. ñawuma ko. venant de Dubaï la. léegi kon benn paquet jeex na. ah ci deuxième bi. bii moom lépp ay robb la te lépp laa bëgg a daaj. ngeen xool xam ne lu meilleur maa koy jaay. ñi bëgg a liggéey maa leen di jàppale. Mhm. ñu liggéey. te dañu indi nag prix bu ndaw rek. prix bu ndaw ñëw ma jox leen. waaw ñu ñu ñu liggéey. Mhm. pare vers sama. àdduna amul solo. su pare numéro bi 77 euh, la. 77 633. 633 11. 11 01. 01 numéro bi sax daa yombaale. Ah, ba tey mën ngeen a def comme bi yombee. mën ngeen a def ba tey 77. 77. 255. 255. 75. 75. 92. 92. ba tey ñi nga xam ne nee na ñoom dañoo am seen ligne ñu bopp mën nañ def 70. d' accord yéen ñi yéen ñi am événement sax nekk. waaw jarutul ngeen di def tuuti ay hôtesse du jël leen ci robe bi rek. kolwaale dafa meer dafa am ndak kolam. dafa ànd ak kolam. dafa ànd ak kolam nee naa la lépp laay daaj. ku mën def ku mënut bàyyi xoolal samay couleur yu tey kër gi yëpp lopp laa koy juug ndax sama yëpp la maa xama ne suba soo xëyee ñëw doo fekki ah. suba soo xëyee ñëw doo fekki xale yi léegi lañ koy eh, eh, eh, xoola boobu xoola boobu couleur xoola boobu couleur black and white tubaab naan ko noir et blanc anglais ne black and ne ko ah? weex ak ñuul weex leen nii yéen ñi ci ginnaaw duggaale leen juug leen rob yaa ngi jël sama xeetu rob xoola couleur boobu xoola bi bële bu dugal noir bële bu waaye ku mën. yaa <laughs> ku mën da ngay def. yaa mën mbele mbele coow la. dama ne ku mën na def ku mënul na ba. ku mënul bàyyi. ku mënul bàyyi. bi. nee naa la barigo bu fees du yëngatu. déedéet. barigo bu xaaj bu dikk am benn paan moo yëngatu waaye barigo bu fees bu ne dégg. dama ne de moo tubaab di taxawaal wala di compter ay potu lampe. non non lii koo indi ci réew mi. te chaque jour laa koy daaji chaque jour. chaque jour. waaw te suñu xëyee mu jeex. heure bu ñu xëyee mu jeex. yii yu meilleur. nga ne ñaata lay jar. 8500 rek nga koy jaay nga jënd jaayee 12000. 12000 francs ngay jaayee. nga jënd jaayee man yéen laay liggéeyal. kenn bëgguma cee am dara waaye yéen ñuy jaayaat am leen ci dara. su ma neexoon ni ne 10000 lay jar nga jënd jaayee 12000. waaye comme nag sëñ bee tax ñëpp bëgg ma. Hmm. damay def te yàlla tax. dëgg la billaay sooñu ma kenn. min xaadatil mu joori wal masaaliwu. bi tey iwal jës bi wa inni saaliwu lil xaadatil wujoori wal masaaliwu yow laa sëriñ saaliw koo doyloo borom njurul borom njàppandar borom dookaan moo newoon ca roñ xay ga borom xaban sangub sëriñ bee ca cuur moom laa doyloo lépp moom la nee naa leen li may wax nit ñi mm. nee naa leen man dinaa yéex a xew ndax sëriñ saaliw damaa taal Serigne Saliou damaa taal nit ñi bëgg ma. xam nga ne lii ci seen kanam la maa ngi daaj. lii nga xëy ñëwaat doo ko fi fekk. lépp lépp xoolal samay couleur xoolal samay couleur xoolal li xoolal li. kenn mësul gis lii. foofu ma de. Eh, eh, eh, nekkuñu ci foire de. ñi ngi kër Diva Saliou nekkuñu foire de nekkuñu foire de nekkuñu foire damaa gis kenn ndax foire lañ ne nekkuñu foire nekkuñu foire ñi ngi fii kër Diva Saliou robu yu bari fa jaaxle lii nee na ndax ñu ngi foire nekkuñu foire waaw gis nañ fi nag ñu dem Dubaay indi benn kees c'est vrai yaayee laajte kër Diva Saliou la ñu nekk kenn mësul gis lii borom ñaari Saliou yi xale bi xale yi bëgg borom jàppandal borom njurul borom dooka laa ilaaha illallah bii nag bi mooy fukk ca fukk fukk ca ndey ja dëgg la ca ndey bi mooy fukk ca ndey ja laa <laughs> ilaaha illallah ah mais mais diva lii waaw gis nga nga ne benn ñaata lay jar 8500 8500 12000 nag lay jar Sénégal mhm. sénégalais laa xam naa prix bi mhm. mais dama ko bëgg a jaayee 8500 mhm. jàppale revendeur yi ñu mën a jaayee 10000 wala 12000 wala lu leen nga ne da nga koo ji tey waaye suba mu jeex tey jii ci guddi gi boo ma waatee ma ne xale yi jël nañ lépp ndax dañuy commande 3 douzaine 4 douzaine 10 douzaine 15 douzaine lépp la ñuy commande. man lañ bëgg. numéro téléphone. 77. Euh, 633 mhm. nga daal di def 11 daal di def 01. Mhm. ba tey mën ngaa def 70 307 13 15. ba tey it am naa beneen 77. 255 75 92. boo wootee appel normal jot ñu boo wootee whatsapp bi jot na. ñu livré la dañ la koy livré foo mhm. nit ne rek. boo ñu woowee ñu livré la ko. Eh, ay xam couleur. Eh. damaa xam couleur xam couleur dëgg dama xam couleur xam gu. dëgg la xool leen na mu koy solee. xool leen lii. nga lii. xam nga da ngay tëj nii. Ah? kol gaa ngi ne. Mhm. nga kolu ak noppale jongo ma gis nga nii booy julli it. alaaji wàcc nga. ah waa ne alaaji wàcc nga. namoon naa la def sa yëf lam sa laale mu ne la waa li nga solal la nga ne ko xanaa nam la rek di la teeru. mu gudd ba ci suuf ngay dox mu lay teqatal waa lu ma deseel sénégalais lan laa leen deseel dama polyvalent indi nga natt mhm. indi naa ay natt mhm. natt yi xam nga ñaata la commencé Euh, deux cent mille ba vingt millions may natt di ko teggi nattal naa leen terrain di natt di ko teggi nattal naa leen oto tay teggi oto ba maak yéen a cay ànd may natt di ko teggi nattal naa leen ay billet Dubaï départ Dubaï bi à tout moment mën naa leen xëccaale ñu demaale Dubaï le 15 février bi ku mën def ku mënul bàyyi xam naa temps bi bariwul euh, te bëgguma leen a sonal léegi nag dañuy ànd rek dem livrer ji oto bi borom dëgg du neex ku mën def ku mënul bàyyi natt oto yi ci réew mi mm. maa keneen ku yor beneen teggil man su ma gisee ku teggi rek li tax ma naan benn natt oto am te maa ko yor mhm. damay natt di teggi ah, yéen a ngi gis yéen a ngi may suivre di gis chaque mois dinaa teggi deux ba trois oto mhm. léegi nag euh, tey la 30 janvier 2023 nañ leen àndal rek ci oto bi may teggi ñu livré ko borom àndandoo waaw kay merci beaucoup je vous love à tout à l'heure laa leen di wax jógee nañu Parcelles Assainies kër la diva Saliou ñëw fi nga xam ne mooy Technopole dama lay bàyyi nga présente lii nga xam ne moom lañ fekk ci Technopole ak fan la jëm voilà sama gars yi nuyuwaat naa leen euh, di remercier aussi waa euh, Sans Limite TV yéen ñi ànd man boobu ba léegi ci liggéey bi euh, di leen wax ne ànd ngeen ak man ci kër ga ñu jóge ci kër ga ngeen ñëw ne ma diva duma leen bàyyi ngeen dem dama leen di topp max ka natt oto yi ñoom nee nañ da leen a jaaxal léegi nag dañ may topp ba ma jël si oto bi livré ko borom tey nag soriwul fi ma koy livré defe naa Ouest Foire laa ko war a livré ñu ngi nii ci parking bi tey oto bi la ñu war a livré borom. ban marque la Jeep la. jub la waaye nag euh, blanc yi xam naa dina leen jaaxal parce que nag blanc damaa jik tey sax moo tax ma tojtalee ko xaw a laalaale blanc du dëgg ndaxte euh, teggi naa fi Nissan blanc la ma teggi fi Ford Escape blanc la tey ba tey xam a client yi ñooy choisir tey jip euh, la ñu choisir blanc marque yi trois marques différentes la waa ñu fas yéene ko jël fii yóbbul ko borom Ouest fois ànd ci ak Sans Limites TV yéen la xale yi bëgg yéen la ndaw yi bëgg natt bi naka la demee woon waa natt bi nag moom dafa yomb moo gën a yomb bonjour natt bi chaque mois cent cinquante 000 la euh, durée bi yàggul 6 mois kese la chaque mois 750 000 nga natt nattaat ñu jox la sa oto te chaque mois dañuy teggi man duma ma dajale natt yi ba mu mat jox ku nekk noonu chaque mois damay teggi chaque mois damay teggi euh, commencé waat nañ beneen bu bees euh, moo nekk nii bii natt bu bees bi la mu ngi commencé woon le premier janvier tey la 30 janvier ñu teggi ku mën def. jógee nañu Parcelles Assainies jaar Technopole dañuy ñëw fi nga xam ne moom mooy Grand Yoff pour def li nga xam ne moom mooy remise ci oto bu rafet bi nga xam ne moo nekk suñu ginnaaw ñu war koo jox nag ki nga xam ne moom mooy euh, Fatima Sarr su ma juumul doomam moo taxaw ni Bounama Sarr. Mhm. alors moom mooy recevoir li nga xam ne moom mooy euh, oto bi Bounama ça fait plaisir ñu euh, fekk la sa kër yaay jox oto sa yaay ginnaaw ba nga nuyoo suñu internet nag nga gisee affaire yi wala. tu ah, kontaan si rek kontaan si bu baax parce que kii moom suñu yaay bu baax la. Mhm. leen rek lañ ci man mooy ñaanal ko rek. Mhm. waaw yàlla na ko jëg. waaw ba leneen topp ci incha allah. incha allah alors euh, ñu war laa jox euh, remise oto bi alors yaa waroon na jël sa yaay oto sa yaay ñu indil ko oto. waaw euh, mbégte bi day gën day gën di yaatu. dëgg la waaw waaw instant yi moom. kontaan naa trop daal kontaan naa. Mm. waaw j'ai moom. Mm-hmm. mais kontaan naa moom. looy wax la diva. Euh, kontaan ci yéen rek. Mhm. waaw kontaan ci yéen. Mhm. nga affaire yi gën a law. Mhm. waaw yaa ma gën a xam. d'accord alors euh, la diva. Euh, moom la ñuy li nga xam ne mooy remise bi oto bu yanj bi nga xam ne miin nañu koo def c'est pas la première fois képp nga xam ne bokk nga ci natt bi gagné nga Nissan wala beneen oto ah, te ñu indi benn jeep lañ indi tey voilà mhm. ah, ko waroon a livrer en Ouest Foire comme mhm. loolu la ñu waxoon ci début bi mhm. mais comme dañu guddee ak embouteillage bi mu xaar ñu ba sonn gisuñu mu ne ñëw leen sama kër euh, yaay euh, ñu ñëw fi Grand Yoff kon ñoo ngi Grand Yoff pour joxe oto let's go la sa caabi oto ngi nii. Mhm. Euh, say papier oto ngi nii. Mhm. un an kenn du la xool kenn du la laal doo renouveler doo def dara. d'accord waaw dëkk bi yow nga mu nii. un an un an la. assurance un an la. Mhm. du ay un mois da ngay renouveler waat noonu. d'accord voilà di ko wax nag euh, ki mu ko jëlal. nit ku baax la. ah nit koo xam ne macha allah dafay jàpp sax ci liggéey bi. day jàpp ci liggéey bi bu baax a baax xam naa nag bëggul feeñ. Ah, mais moom xam na. ah yaayam ku baax la ah, kuy jàpp ci liggéey bi la. may jàppale mhm. te ci kanam a kanam di ngeen xam euh, lan la macha allah daf may jàppale daal mhm. dégg nga ñu ngi ñaan nag euh, mu jàmm mhm. oto bi mu ngi nii oto bu meilleur bu garanti ci Diva Saliou taalibe Serigne Saliou borom ñaari Saliou yi. d' accord kon mi ngi noonu Fatima euh, yàlla na bi ràpp jàmm salaam. tam ba yeneen xéewal sax ñëw ci. ndax ni ko waxee nii. Euh, ku la bëgg la te mi ngi lay jàppale. ndax bu ñëpp defoon ni moom itam. la jigéen ñëpp dinañ am oto. dëgg la yàlla na ràpp ak jàmm Saar Gëleem Saar Ala Racine. Hmm. Saar Gëleem Saar Ala Racine Saar Patama Saar ak Awa Ndiaye borom maam yi des ca Grand Yoff. dëgg la Seexul Xadim nee saareen boo ba jëkkër ndax ay garmi lañu. yàlla na ràpp ak jàmm yàlla na ràpp ak jàmm te ngeen ràkkal <laughs> voilà euh, merci beaucoup kon euh, yéen a ah, ngi àndoon ak ñun boobu ba léegi euh, Diba Saliou taalibe Serigne Saliou borom ñaari Saliou yi oto baa ngi nii jëb bu ne muut nee naa la ñun li ñuy wax <laughs> dañ koy def ñun waruñu rek di wax te defuñu dañuy jëf nee naa la dañuy wax lu tuuti jëf lu bari mm-hmm. nee naa la nag barigo bu fees du yëngatu mm-hmm. barigo bu feesut mooy pàllax di def ay yëf topp leen ma Diba Saliou taalibe Serigne Saliou mu ngi digg Grand Yoff man nag Grand Yoff daf maa neex est-ce que du ma fi tux si <laughs> doo leen ma fi abal fu ma dëkk rek ma tux si Grand Yoff man damaa yàgg a bëgg Grand Yoff ma ñëw jeex na kon waa parcelle baay ah, baay ndax tàgg woon naa leen sax maa ngi mari mais léegi moom Grand Yoff laa waa Grand Yoff laa ànd ak sama góor d'accord jot nañoo am dara ci wayaan gi bu ma fàtte bien sûr am nañ 30 000 léegi damay jël 10 000 jox Basir 10 000 jox Babacar 10 000 non non eh man mi ci la mbaaral ma fëral la ma pël la